ñeme naa ñàkk sama alal bi yëpp mais l'essentiel na jor feeñ. ce n'est plus la peine jarul jarul def xaliss. on a retrouvé Dior. mais pourquoi ce regard tu as vu le diable ou quoi. Amna ko ku ku nekk ci biti nee Jor Dior lay sék. Dior, oui. Il prétend même être son mari. ah moom la def. Maajo dafay génn ak Fanta Diallo. Fanta Diallo. waaw journaliste la. dafay affiché wu ak moom ci restaurant boîte de nuit Aussi au su vu de tout le monde de ce ma ko du ko nier. daf ma koy wax nii ma koy gis. il est beau il est galant teg ci nopp ma ba doon il est très kii rek. il est il est amoureux nga wax de néew ma tu es amoureuse. nañu waxtaan est-ce que ni nga nobee woon maa joor noonu nga ko nobee. da nga bëgg dégg